ñi doon wax vingt trois euh, mouvement vingt trois juin taxaw jeneen ñi tamit comme ñoom benn ñebe ci cin la ñu woon gars yi leen ñu daat fay jóge rapidement léegi nag rond point bi yëpp ñu occupé ko po pression bi metti am ay député yi ne ci biir euh, yoo xam ne kenn ki sax actuellement comme transhumé na jëratul may wax ay waxam ñu def seen i déclaration ak ay pression yu jot ci président de la république ñu daal di dellu ginnaaw maintenant nag fi laay daanee la ci Abdou Karim Gueye xurum xaj xam nga Abdou Karim Gueye c'est une fierté nationale gis nga Abdou Karim c'est un patrimoine mhm. man su ma gisee nit ku am fit gëm réewam buy défendre du ci xool lenn lu réewam ñu bëgg koo ñàkkal fayda bëgg koo bundu xataal alors que ay faussaires ñu ngi ci dëkk bi ñu leen di libérer mais di bàyyi Abdou Karim Gueye moom ci prison bi def ko un otage que personne na doit accepter d'ailleurs jour bu mu ci yokkaat moom Abdou Karim Gueye en prison c'est une honte pour tout le peuple sénégalais loolu laa gëm man donc c'est c'est le moment pour que tout le peuple sénégalais exige que ñu libérer Abdou Karim Gueye parce que parce que li mu doon xeex xeex ko pour moom daf ko doon xeex pour askanu Sénégal yëpp effectivement loolu mooy dëgg effectivement alors ci noonu aussi dinaa dem euh, ci euh, ci ci monsieur Diallo justement euh, dafa nekkoon benn